Sport merci encore de like, merci de des abonnés, merci également d'y bailler des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations en bokk sénégalais. Fait faut le maintenir 14 régions du Sénégal à nous wërgal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci leen hôpital yi ci kër yi borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam borom génn leen fa delluwaat leen seen yi te yéexee avance ensemble dans la magie de eSport ne nag mooy donc lii di euh, Marseille ak euh, Pablo Longoria ak Marseille yu bëgg ci di Pape Alassane Gueye euh, Sabaly nga xam entraîné wul Graham joxe ay information ci ki nga xam ne ministère des sports dafa leen di yóbbu nan demee loolu lépp lañu indi ay leeral mais d'abord nga xam ne ñooy waa Los Angeles Lakers ba léegi amaguñu ndam ba NBA bi commencé ba léegi ah notamment ak Westbrook bi nga xam ne moom ah, surtout sur les tirs à trois points day moom pour mu jëlaat NBA dina metti loolu Cristiano Ronaldo Lionel Messi nag seen i doom yi dañoo tey ku nekk da nga fan sa papa morom parce que Lionel Messi nee na doom ji day seetaan Cristiano Ronaldo rek Ronaldo moom nee na doomam moom du ko sax seetaan euh, Lionel Messi donc lay seetaan di wane respect amour réciproque bi nga xam ne am na si ñaari euh, joueurs yi donc par rapport ak seen

moom la lay def pendant ce temps aussi une autre légende du côté du FC Barcelone cette fois-ci muy kii di Dani Alves Dani Alves nag mi ngi entraîné ak Barça B moom mi nga xam ne nag ah donc li mu bëgg mooy préparé wu parce que coupe du monde bi dafa war a dem ak la CEDEAO moo tax mu dem ci Barça B bi di football ak ñoom di entraîné. bu baax a baax Toni moom nee na lii bu coupe du monde bi jeexee moom day fas yéene carrière internationale am avec waa Croatie donc dootul joué benn compétition boo xam ne dëkkam da koy joué a baax nañ ci scout xool nañ ko ñu supervisé jour la boo xam ne tey ñoom daal bu amee opportunité jënd ko dinañ ko jënd Augminson mi nga xam ne actuellement donc il veut changer d'air comme ni ci suba ki ngeen gis ni nag ah donc di Modric di nouvelle pépite brésilienne bi nga xam ne gars yi moom la ñuy coow Palmeiras moo ko moom actuellement nag Palmeiras 35 millions d'euros la ciy Paris Saint-Germain millions tegoon stade bi ñu daal di bañ aussi dañ ko bëgg mais pour bëgg ku jënd ko il faut nga teg xaalis bu leer leer table bi ki nga xam ne nag mooy Kike Setien Kike Setien nag gars yi nee nañ moom moo nar a succédé ki nga xam ne mooy Unai Emery à la tête donc de du jaune muy waa Villarreal donc ñoom daal actuellement euh, waxtaan yi nii nañ ñi ngi gën a ci kanam moom atterri na donc ci aéroport bu Villarreal pour daal di waxtaan ak négociation ki nga xam ne mooy Pau nekk aujourd'hui benn si boo xam ne Manchester United mais aussi surtout Paris Saint-Germain actuellement di Séville ñoom nag kii ji encore entraîné wul Youssouf Sabaly mi nga xam ne daal actuellement fragilité tànka bi mooy poser problème baax baax ah, c'est un excellent joueur mais il faudrait que sincèrement ñu trouver beneen joueur boo xam ne dina mën di ko seconder ñu def les bons pour xam ne mooy accompagner Sabaly bu ñëwee ci coupe du monde nga xam ne au mu blessé am na ku fay nekk bal bi ngeen gis na gars yi ca League la ah, donc comme que seddaay bi day waaj Bull Prime League bi les équipes yi nga xam ne ñoo ëpp la dugal ci saison 2022 gi gis nga Manchester City moo nekk ci kaw topp ci Arsenal Tottenham Fulham Liverpool Leicester Newcastle Brentford Erling Bro Haaland nag moo nekk premier donc gis ngeen ko <laughs> moom rek ah, xam ne dugal na ko bi nga xam ne gars yi dañ leen jox benn day fay téléphone fu mu jotee day fay téléphone day takk ay lunettes yoo xam ne lunettes yi pour dàq lumière bi la donc

jaay nañ Bastoni bu Inter de Milan bokk na ci cible Antonio Conte muy fas yéene Conte ci moom pour daal di renforcer équipe am fii janvier ak aussi li nga xam ne mooy euh, saison bii di ñëw ma tax na daal euh, Tottenham ils sont prêts à mettre les moyens pour recruter Bastoni de l'Inter de l'anglais moom xam ngeen ko waxoon naa ne ko démb waa Barça ñoo ko moom al ko Tottenham waaye amul option d'achat mais ci principe bi ñoom ñaar dañ ne muy Barça ak euh, ñi di bu fin saison bi jeexee mun nañ toogaat waxtaan kaw ki xam ne mooy l'anglais bu fekkee dafa bëgg a toog aussi intérêt si Tottenham ñu teg xaalis si table équipe bi nga xam nag moom ba depuis championnat bi commencé ba léegi cinq derniers matchs am yi yëpp amu ci euh, daf ci am succès mooy waa Napoli Napoli bi nga xam nag ñoom ñooy premier du côté de la Serie A bett nañu ah, ñu bëri jàppoon nañu ñoom Koulibaly ak Napoli day wàcc mais fi ne ñoom nekk premier au classement ki ngeen gis ni nag donc di Pablo Longoria Pablo Longoria nag opération de dégraissage la nekk actuellement du côté de Marseille gannaaw bi ah, da wax euh, ci suba li mu wax mais aussi kii di Pape Alassane Gueye gars yi nee nañ yéenekaay bi de l'équipe moo ko wax OM info tamit daal di euh, koy jaarlewaat ne euh, Pape Alassane Gueye daal jamono ji ko bëgg jaay donc buñ ko mënee jaay débarrassé wu ci moom loolu daal la Marseille ak notamment Pablo Longoria bëgg a def ndax dañoo bëgg wut ñaari milieu terrain offensif yo xam dañuy accompagner ki nga xam ne mooy ñoom Guendouzi ak Rongier loolu daal mooy gis-gisu. dirigeant Marseille yi nga xam moom daangi daal jaay lañ nekk parce que seen président bi dafa dootu dugal xaalis ci gafa gi ñoom ñoo xool nanañ fexe ba jaay pour def ci xaalis ci gafa gi ba pare balaa ñoo jéem ba Igor Tudor ñëwee di mooy capitaine mais li muy joué bëriwul rongé ngay gën gis li muy takk brassard de capitaine moom it bokk na ci joueur yoo xam ne gars yi actuellement ñu ngi wax ne euh, dañ leen bëgg jaay lii nag di jëm si wàllum supporters yi ministre ki nga yam famille ku nekk ñaar nga yor mais li ñu bëgg mooy ñu leeral ñu 327 yi kan ak kan la parce que loolu aussi dafay leer waaye wéy leen di la gars yi toujours plaisir de vous servir jaa